Euh, atelier bi ñuy def nii tey dajale boo xam ni IPAR moom moo ko sooke woo ci ay euh, kuréel yu mel ne ANSD mi statistique ci réew mi yëpp nga xam ni lu fi juddoo ci statistique ci loxoom la war a aw wala mu contrôler ko wala mu consolider ko wala mu autoriser ko danaa ci dellusi ci euh, ci exposé yi ñuy def ak DAPSA bi nga xam ni moo nekk ministère de l'agriculture mooy jëm ci lepp lu jëm ci ay statistique yu jëm ci mbiru mbay mi mais du mbay rek mbay dugub ba gerté yoyu mais lu jëm ci cham gi lu jëm ci nap mi lepp lu jëm ci all euh, bi mbay euh, donné yi ci euh, yi nga xamni fofu lay lay euh gouvernement bi xam ngeen ni dafa jël dialogue waxtaan mu nek sart bo xamni daf ko ñun di ko war a def donc li ñuy dajale nii ñi nga xam ne ñooy jëm ci statistiques yi statistiques yi mbay meeg ak lu mel ne moom lu baax la loo xam ni ñi koy seq danañ ci mën a waxtaan xam problème yiñ ci am nu ñuy mën a jànkonteeg problème yooyu nuñ koy mën a fexe ba mu jëm kanam ba ñi nga xam ni ñooy jiite réew mi di war a jël ay politique wala ay mesures wala ay euh, lu lu jëm ci àll bi ñu mën koo euh, basé wu ci ay euh, ay ay ay ay ay xayma yoo xam ni yu yu yu baax la yoo xam ni yu wér la loolu lu am solo la ndax bu ngeen ko seetloo statistique comme yeneen domaines yi moom it dafay war a ànd ak jamono lu jëm ci satellite yi li jëm ci drone yi lu jëm ci technologie de l'information yooyu yëpp daf koy e, day am jeexital ci ni muy doxee kon ñi ko seq dajale dajo di ci waxtaan lu am solo la motax atelier bi atelier bu am solo la motax biñ ma invité ma ni ma ñëw ci e, ndax lu soxal rew mi la lu mëna jëmele mbay mi ci kanam euh xolé bu baax ci euh, ginaaw amna ben leunkolo bo xamantene amna ci diganté IPAR ANSD ak DGPPE mu waraloon ñu euh, taxawal organiser ben atelier bo xamantene ni euh, ay kat yu yu mag dajewon nañ ci ñu gis né euh, ñenti secteur yi muy secteur emploi gouvernance emploi ak agriculture dafa nek ay secteur yo xamantene ne am na ay ay jafé jafé ci walu wàllu données yi nga xamantene mom moñi mom moy permettre ñu mëna xayma fu ñu fu ñu politique yi nga xamante ne ñoo ngi koy mettre en œuvre euh, bi loolu amee IPAR ak ANSD euh, le Colo ak DAPSA ak euh, partie prenante yëpp ngir taxawal li nga xam moom mooy plateforme AgriData ngir képp koo xamante ne soxla na information wala ay mbir yu jëm ci walu agriculture moy ci walu mbay euh wala nap wala wala sam mu mëna a dem ci plateforme bobu am information yu mu soxla yépp euh, donc euh, loolu mo moo waral tey ji euh, ndaje bi ngir ñu xalat si naka lañu mëna contribuer ndax politique yi ñi def ci walu agriculture mëna mëna nek politique yo xamantene ni. dañ koy sukkandikoo si ay ay ay xayma yu wër ay xayma yu leer si bobu walu itam lañu def ben gëstu si li nga xamantene mom moy objectif de développement durable les ODD euh, yi nga xamante ne euh, étude bi wane na euh, cadre yi nga xamante ñoo existé maanaam cadre yi existé actuellement pour mën suivre pour mën top fan lañuy tollu kat si renseigner indicateurs yooyu wane na ne kat cadre yi war nañ mën ñoo renseigner indicateurs yu bari waye problème bi fu mu nekk moom si mise à jour yi moy ñu mën ko am at bu nekk wala euh, période bu nek ñu mëna am information yi pour mëna suivre politique yi ndax mo ngi jaar yoon wala amna fu ñu wara euh, amna ay rek rek yu ñu wara ñu wara ñu euh waye tam euh ñu fofu ñu recommander que ne dañoo wara taxawal ben ben ben groupe ben bo xamantene dina xalat si nan lañuy def ba données yoy kat ñu ñu ñu mën ko di am euh, de façon li nga xamante ne de façon régulière Waitem itam euh, ñu daal di euh, gën a former ñi nga xamante ne moom structure nationale yi nga xamante ne ñoo war a euh, renseigner ñoom ñoo war informer li nga xam moom mooy indicateurs yooyu ñu gën leen a former renforcer seen ay capacités ba nga xamante ne li moo li nga xam moom mooy données yi nga xam ñoom moom la générer muy ñu renseigner indicateurs yooyu de manière régulière